man la coach Bafa Bafa Gueye euh, nekk entraîneur national euh, lutte africaine waaw ñëwoon nag ci formation bi entraîneur yeeg initiateur lutte bu CRG bu fat bu kii organisé CRG bu Thiès. waaw formation bi nag li ko sabab mooy euh, dañu am ay entraîneurs yoo xam ni dañu yor ay écurie yor ay école de lutte yor ay xale di leen tàggat. Euh, ñu bëggoon ñoŋal seen xam-xam moo sabab loolu beneen bi mooy am nañ itim ay arbitre yoo xam ni à chaque fois ñu ngi arbitré te amuñu yenn niveau yi donte bëgg nañu làmb ñu ñëwoon nag ngir yokk seen xam-xam ci wàllu arbitrage. parce que nag euh, formation dafa bëri ay niveau bu fekkee initiateur la une semaine baax na une semaine baax na boo demee premier degré là mën nga ko yokk ndax lu nekk ak ak contenu programme contenu bi ciy am. mais nii nii une semaine bi dina doy macha allah. waaw waaw waaw waaw heure bu erreur amee rek dinañ ci jàngat pour gën a mën a améliorer wu mais arbitre itim il faut ñu xam ni nit la day juum yàlla rek moo dul juum mais bu juumee nag dinañ ci jàngat pour bu ëllëgee ñu mun ci defaruwaat daal loolu rek la mais ku dul juum amul nit moom ci li ngay liggéey rek nga mun juum man nag dan ma war ni ma ñëwal formé. dan ma war ñi ma ñëwal forme xam naa ni nag soo laajoon waa CRG bi ay ñoom euh, père Habib boog ñoom Thierno Ndiaye ak Maysa ñu mu gën la mën a leeralal ci loolu mais man moom dan ma war ni ma ñëwal forme entraîneur yi. coach nag yomb na yombul yomb na yombul yombul parce que yenn saa ay athlètes yu dëgër bopp yu dëgër bopp boo leen nee ñëw leen 5 ñu ñëw gée boo leen nee ñëw leen 6 heures du ñu ñëw 9 ba pare dee fois jot ji itam li ñuy liggéey jot ji du ko matale euh, loolu daal mooy difficulté nekk entraîneur mais boo xamee fi nga jëm rek jaar fi nga war a jaar ñu tàggat la euh, du jafe loolu daal. Eh, yeneen sport yi ñëpp violence foofu sama waa ji yooyu ay détails la rek làmb bu njëkk dañ doon jamante ay béjjën sottante fii ay kaani yooyu yëpp am na fi mais làmb léegi dafa civilisé. lépp problème d'organisation la et puis ñu gën a wax ak gën a wax ak euh, supporters yi amateurs yi def benn liggéey boo xam ni benn communication à la base ku nekk di wax ak ñi nga yor yar leen su boobaa lépp dina mën a gën a rafet. mais làmb moom vraiment ñi ko doon seetaan ba léegi ñi ngi koy seetaan ñi koy bëgg ñi ngi koy bëgg ba léegi nanu ñaan yàlla rek yàlla jàpp ci incha allah dina baax. mais gën a góorgóorlu rek gën a góorgóorlu gën a jàpp xam ne làmb nattu la ku ci yàlla nattu di nga ci dem. mais lépp sport la bu jeexee rek jeex na ñu ngi jaajëfal ñëpp. non ñooñu ay jàmbaar lañu dama fekk ñu am benn niveau boo xam ne dañ ñëw rek pour jàpp ci mais ils ont déjà le niveau ils ont déjà un vécu. waaw waa Thiès moom euh, ñi ma fekk ci écurie yi ay jàmbaar lañu mais formation bi nag du fi am parce que bëgg naa incha allah heure bu ñu amee jot rek ñetti weeru ne ñu ñëw gën leen xool ci li ñuy liggéey gën leen dooleel macha allah yéen tamit ñu leen di jaajëfal parce que bu dul yéen affaire yi du gën yaatu yàlla yàlla dooleel leen.